gérer ko rek dama am lu ma jël décision bu ma jël. ah waaw kay pour Jean Michel nii. tey du ma reetaan. parce que daf ma wax ne ma xale bu jigéen laa invité ma je lan laa la wax. yow jigéen mun laa. man la man jigéen mënu ma reetaan loo. Ah, comédien bu comédienne bu jigéen. je suis pas macho je suis un peu euh, je lan la war a mën a def ba man ma reetaan. waaw loolu moo la loolu moo la jaaxal mais Pape Sidi loolu warulaa jaaxal ndax yow xam nga riiru tribunal la fa ne. ah xam naa ko kii dama xam ngay élément wu riiru tribunal. xam naa ko kii élément wu riiru tribunal la Maman Ndiaye na nga def. maa ngi fi Jean. présenté sa bopp ba pare xam naa ni yow. Jean euh, maa ngi tudd Maman Ndiaye mais euh, plus connu sous le nom de Roqi Daba dans Nafi je suis aussi dans riiru tribunal maa fay commissaire bi. et puis euh, dans pas mal de trucs hein. Ah, yow yaa nekk ci Nafi noonu di euh, gësëm waa ji. waaw roqi da ba waaw bëgg koo yóbbu mu wallaay ndeysaan day dem. <laughs> Nafi lan la. séeréer la benn ci séeréer la Maman Ndiaye. Uh-huh. Euh, waxuma man ci li mu wax la mën nga koo reeloo ak mënoo koo reeloo waaye man dama am benn bis boo xamante ne dama la fa daf may jàpp maanaam waajeeg mbaam mi. <laughs> saa yaa ngi may laaj lu garaaw. du nee nga doo reetaan yow te ba ma la xewee léegi sa rase dara sëq si nag nii la toll nii la mës a ci àdduna musul sëq nii rek lay toll mais on xam naa ndoxum cité la jàpp rek. <laughs> d'accord ba ngas la. du ma reetaan mais si je vais te une chose loo xam ne c'est grave. Mm. waa ji. waaw dafa am mbaam. daa dàq dàq dàq mbaam bi na du dem. Sidi mu xëccu góos xëccu duraat mbaam bi na du dem mu ne baax na mer na xamul lu muy def mu jàpp nopp mbaam yi non bul tax gémmiñ gi bàyyil <laughs> il triche. je triche pas je sëq mbaam bi jàpp yëkkati ba ci kaw ni tuuti tegaan mbaam bi. sii di waajee jékki-jékki di gis fukki mbaam ci kanamam xoolal ma nga naan leen. mbëkk bi jombu leen de yéen ñi taxaw laay wax ndeke day janeer mbaa bi <laughs> ma nga naan pour tout le monde ici tax ici présent laa wax mbëkk bi jombu leen de gisul dara day janeer <laughs> ma ngay janeer siidi ay mbaam lay janeer ndeke jombu leen laa la wax yéen ñii taxaw yor ngeen ne ma xujj di xool ma dolli siidi no kii day re siidi waa ji dañ ne ko kër gi ay dëmm fa ne mu ne du dem eh. ñu wax wax mu ne dëmm amul di jëm kaw jëm suuf mu ne waay dëmm amul mu ne léegi pour en avoir le net man maay dem ba ci kër gi di vérifier xool ndax ñii dëmm lañu wala duñ dëmm Sidi waajee ne kes buntu kër dëmm yi ubbi ne nii di yurlu ñu mar bët ba. Sidi <laughs> Sidi bët ba lan mar bët ba. waay Sidi waay. Sidi bu ma tàngal. est-ce que du xar moo mar bët bi est-ce que du xar moo war bët bi moo ma jeex. ma ma reetaan ma loolu. Khadija man lu mar bët bi laa bëgg a xam. lekkuñu ko dañ koo mar. ah. avertissement. tu es averti. te génne wuñ ko de dañ ko. waaye dama la may nga noppale ko tuuti rek bu mu bari. waaw ndeysaan. Pape Sidi xam nga dafa am tëdd yoo xamante ne tëdd nit ku nit ku tayal yooyu. maa ni mbàpp rek. 4 bi 4 bi mooy def 4 bi nii. waaw mooy 4 bi waaw. xam nga dafa am ay ay chiffres 4 bi. waa ji dafa tëdd ci jàkk ji weeru koor ndeysaan imaam bi waaraat xam nga deux heures maa bu ñu julee ba pare rek ñuy tafsir imaam bi nekk fa waaw yéen xam ngeen ni waaw yàlla nee na nangam ak nangam waa ji def kat bi ba yàgg di jóg ne ko e imaam imaam ne teg mu ne ko nga baalal ma yow weeru koor kan moo koo indi fii <laughs> ne ko kooku yonent bi la rek ndeysaan sal bi ne sallallahu alayhi wa sallam mu riir waa ji ne teg wala ko sévère ko daa tëdd bi continuer waaraat yam war ba yàgg de wàcc na ko eh imam ma yow tabaski ak pompiteer ak sauce macaroni ñoom seen kan ma ko indi ne ko kooku sunu maam Ibrahima la mu ne kookoo jàng nag kooku ngeen war di jàngale ay jàngale ma kookoo jàng kookoo xam lu baax na moo indi sauce indi koor ma bëgg a rey Sidi benn waaye sénégalais dugg ci avion di voyager moom américain français. si di di voyager voyager voyager voyager ba ci digg ba avion bay chuté di perdre altitude. nootoo si dëggal li bon comme français bi moom am na héros ci dëkkam mu jékki-jékki yuuxu superman superman eh. superman naaw ñëw na cas français bi dem ba France teg ko fa. sénégalais bi ci avion bi muy pertaat encore altitude. américain bi xalaat. daani ne Batman Batman Batman aw ñëw ne ko cas yóbbu Amérique teg. mu des Sénégalais mu des Sénégalais bi. avion bay gën a wàcc. lu muy wax xamu lu muy wax avion bay gën a wàcc xamul lu muy wax mu xool góos gisul kenn xool dara gisul mu ne Bamba maan Alaaji Maalik maan jërëjëf ay eh, wax dëgg ñoo ñooy suñu super héros. <laughs> maa la ko wax. <laughs> Eh? non reetaanagul. maa la ko wax. jërëjëf yaakaar naa ne waxtu wi xoj nañu genre. Pape ma ne woon jigéen du ko reetaanloo <laughs> moom mujj na fi bàyyi émission bi dem yoonam ayca. Eh, waaw kay ba waa kon émission bi jëm na xëccu na jëm ci jeex euh, comme dañuy dañuy nuyoo rek benn daal di daal di kita ñu nit comme Pape Sine li mu def waaye tey dafa am sama doom joo xam day anniversaire le 5 man du ma ñëw fii waaw muy may naa saaliwu fële ca Bamba ma <laughs> maa koy bu ngande te pata di nuy sama xarit yëpp euh, am na xale bu sopp boo xamante sax day saan ba yàgg di ma envoyé message sama téléphone bu mu kalsoom bàyyi ma ngir yàlla loolu wax na ma ko ci émission bi. day bëgg di bokk tax di naan ma doo posé des questions nangam ak nangam waaye bokkoo naan émission bi tamit toogal seen kër. bokkul jërëjëf. heureusement tu es tu es tu es formidable en même temps tu joues dans une série après nga joué si benn rôle boo xam ne commissaire nga fa en même temps tu es aussi comédienne tu as beaucoup de talent ay personnages yu bëri ngay dajale di ko def nii. moi euh, j'aimerais bien te connaître. en fait le choc dans Nafi. Uh-huh. a été quand elle s'est exprimée en français. parce que euh, rôle bon la fa doon jouer quoi genre. moom moo jógee Kaoga ñëw nii mais euh, quand elle quand elle a parlé en français tout le monde était. <laughs> mais tu sais la c'était juste pour euh, pour euh, pour mettre l'accent sur les bonnes qui quittent le village pour venir à Dakar. waaw que ni tout le temps nekkul que ni nit da nga koy gis di ko sous-estimer. wala nga di ko teg fenn fi wala nga di ko atte ñàkkal parce que ñëpp bokkuñu yem. Mhm. tu vois. une villageoise bu jógee di làkk français alors là c'est quelque chose ah. xam nga tu vois. ñëppay c'est si différent aussi les deux rôles. ma lu ngeen di wax mais c'est super. <laughs> en tout cas mais Bamba Man ça fait plaisir. Ça me fait plaisir, mais je ne pouvais pas partir sans pour autant remercier ma mère aussi qui, avec son soutien, mon père, toute ma famille, hein, Koutia, parce que j'ai débuté là-bas à Koutia Show. Yeah. Donc oh, c'est le premier Bien homme à avoir confiance en moi et à me mettre devant un écran. Donc je le remercie. Mais aussi, euh, fu ma toll tey ci théâtre waa riiru tribunal la. Mm-hmm. Adam, Ox, Moussa Diagne. foofu nga jàngee wala da nga ñëwaale indaale sa talent. waaw ah, waaw je suis venue avec un talent parce que c'est quelque chose qui est en moi. Ça mm-hmm. réside en moi. je suis née avec un talent parce que man ba ma juddoo laa commencé ree daka def ay affaire yoo xam ne sama yaay daa jaaxle woon sax. <laughs> moom boo ko si seen lépp bi moom mooy ñun suñu super yi sëñ Serigne Touba la moo tax waaj bi mu jàqee <laughs> woo nañu dara woo Bamba maan El <laughs> Hadj Malick maan. loolu c'est trop drôle. avant quitter yow foog ma foog ma bàyyi la benn. da nga bëgg anéantir quoi. waaw parce que da am gel. man waaw su ma waxee bi nag damay dem danga am jël. ñun kay ñooy ànd. invité ko resto ngeen dem toog Novotel rek invité ko nga ngeen toog nii di waxtaan ba si yàgg gel bi fantaa la tudd yow nga tudd bàyyi Sidi. ni ngeen toogee di waxtaan xam nga bras dessus bras dessous nga teg loxoom sa loxo si loxoom ngeen di waxtaan ba si yàgg serveur bi ñëw ne la monsieur vous prenez quoi nga ne ko benn fantaa quoi. mais pour moom il a il a que ne moom bëggu gi nga ko bëgg moo tax nga ne Fanta ma ngay jooy naat. <laughs> c'est romantique. lan la mu <laughs> doo ma gën a gore jox ma benn baay siidi <laughs> benn baay siidi. ko defee xam naa la. émission ba jeex ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm Kadiane daam ku muy remercier pour.